kawe kawe yi nga xam ne suñu borom rek mooy ki ko jagoo mooy ki ko am ñoo ngi julli sëlmal ci Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom bu fekkee jot ci waaru xéwal ci kaw yonent mbokk yi saxaaba ridwanullah alayhim ajmain dellu si waat nañ ci doon keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu bind bëree ci ndax xeet saxaaba ñu nekkoon ci dund xabrul umma wa fikrul umma xabrul umma wa turjumaan al quran xóoree xeet yi nga xam ni moo gën a dégg al quran ci xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy abdullahi ibn abbas bu ngeen fàttalikoo ci ñaari bind yi wees ci dund ibn abbas ay njàng mi ci yoo xam ni dafay soññaat ndaw ñi ci xam-xam ngir ñu xam ni borom bi subhanahu wa taala kat xam-xam dana ko dénk mag ñi waaye dana ko dénk ndaw yi ñaari moom mooy dana gis ni nekk teraanga borom bi subhanahu wa taala daf koy def ci xam-xam ndax gis ngeen tawfiq ak teraanga yi nga xam ni borom bi soxna daf ko defoon Abdullah bin Abbas te loolee dara waral ko woon lu dul xam-xam inna allaha la yarfau bi hada alkitabi aqwaman wa yadaau bihi wa yadaau bihi axarin sunu borom kat dina yëkkati ay nit ba ñu kawe su fekk sababu téere bi la leneen jaare muy alquran waaye dana wàcc ay nit ba ñu doyat yi su fekk sababu téere bi la ko jaarale muy alquran kon sunu bi ne tey mi ngi continuer ci dundu Abdullah ibn Abbas Abbas ibn Thabit wa qasidatuhu fi habri l-umma Abbas ibn Thabit ak baat yi nga xamante ni doon na ko wax di ko tàggee Abdullah ibn Abbas mbokk yi xam ngeen Abbas ibn Thabit nit ku kéemtaane la woon li ko waral mooy borom bi daf koo defal mu nekk mag bu xam li muy wax xam ngeen am Hassan ibn Thabit dund na téeméeri at ak ñaar bi muy dugg ci lislaam dafa fekk mu am juróom-benn fukki at te dundaat na ci lislaam juróom-benn fukki at ak muy cent vingt ans am na ci saxaaba yi ñoo xam ni waram xam-xam yi dajale nañ leen ci ay téere di wane ne ñii kat ñoom ñooy ñi nga xam ni yàlla def na dund nañ lu mat téeméeri at ak ñaar fukk juróom-benn fukki yàlla dafa def ci kenn ko dund juróom-benn fukk yi des ci dugg ci lislaam Hassan ibn Thabit jala Hakim ibn Hizam jala ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñoo ko nuróolee noonu maanaam ñoo ko nuróolee noonu mooy juróom-benn fukki at la ñu am ci lislaam fekk juróom-benn fukki at yi dina ko ñu am ko seexu xam mag la mu xam li muy wax xam ngeen Hassan ibn Thabit ku guddee fan loolu dund na ànd ak yonente bi lu bari dund lu jiitu yonente bi lu bari waaye nag fekkee magi saxaaba ya fekkee ko nañ saxaaba ya moo tax doon na way di tagg ki nga xam ne moom mooy Abdullah bin Abbas way woowu ak lan woowa nag mooy wu nagar wax bokkul ak mbir yi ñuy def tey da ngay gis ñoo xam ni dañ ne dañuy tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye dañuy toppal sa tagg ga dëgg la sax nit ñi tagg yonente bi en général nit ku muy tagg du tax xam nga kuy tàggu ëppal rek nga mën a def doo am lu yées kuy tàggu moom da ngay ëppal rek am na ñuy tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam su fekkoon bi ni tàgg gi ñuy tàgg yonent bi dañuy wax la am tey ñuy yem ci bañ koo dugal ci benn instrument ñaareel moom mooy du ëppal bu njëkk ya nit ñi dañ doon tàgg yonent bi salaatu wasalaam bi ci ëppal loolu instrument daaw ci am moo baaxul bu mujj bi dañuy tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu ëppalee bu ñu ëppalul instrument moo koy yàq waaye xasaan bi saali loolu tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko way waaye lan doon wax lu jub la amul instrument kenn du ko ikkar par at kenn du ko tëggal ay nabar kenn du ko yital ay xali ay ay ay xal parce que xasaan da doon way yonent bi ci biir jàkk nga boo demee ci Bulughul Maram alxaafis ibn Hajar indi na benn xadis ci baabul makaari xadis ba mooy Umar ibn Xattaab dafa romb Hassan ibn Thabit muy way ci biir jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn Xattaab xeeru ku ko xiiram xam nga xeeru xeeru xeeru xeeru li nga def ànd na ci xam nga nee nit ñi ko bëgg a wax dara waaye ni ñu koy xoolee ak ni ñu koy xeeroo dana xam li nga bëgg a wax Omar ibn Xattaab xeeru Hassan la xiiral ko Hassan ni ko mësumaa xeeru dina xeeru yi sax ma bàyyi li may wax ndax yàgg nan naa taxawloo ci kaw min bar bi may way ci ku la gën la ci yàgg allahu akbar ni ko yàgg nañ naa taxawloo ci kaw min bar bi may way te ku la gën liñ ci yàgg ci mu yeneen ci alayhi salaatu salaam xamal loolu yàgg aw am xasan di saa bi yëpp ni abu hurayra naa tudd noonu abu hurayra ni ko waaw ndax yëg naa ci laaj yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mu ni ah inna ruuxa alqudus yunaafixuka wala yu ajiduka maanaa baxta an rasulillah jibril ñi ngi lay gaaraan di la dimbali di la jàppale fii yaa ngi défendre yéen si sama ci say wax kon loolu la ñuy wane mooy kon am na may ci buntu boobu xataa ci des saabit wax naa ko fi maraat moo tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tontul yonent bi ca yéebar yi bañ koy xam xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toll nañ jamono gaa yi xam mu ne xam nañ ko لأن المشاعر الله سبحانه الله بشاعر كاهن ولا بقول كاهن ساحر ها رضا عليه الصلاة والسلام لا تعتقد أنك إذا كنت أذكر مخلوق مني لما نبدي فوق رسول الله كيف قلت لنا إن شانك هو الأبشر إلى يوم من يوم كنت أذكر لا كنت أذكر من بعد يوم ما يقام بشيء يحصل ما كنت تقول له يبدأ ولو يحصل كثير yonent bi alayhi salaatu wasalaam xasaan di ko tontul xasaan ne yonent bi jox ma ndigal ma tontul la ci yéefar yi yonent bi ni ko ah laa xam nga ne ñi may saaga samay bàyyi lañ te bu defut tànk nag xam nga wax dëgg yàlla bàyyi jàmbur boo ko saagaa rek saagawaale laa ko ndax léegi di nga dugg ci askan bi ba saaga boo war a saaga wala wax boo war a wax booba ñi ngi wax yéen sama ay wax yu métti wax yu mag sànni ko man de mën naa laa fayul te bu ma lay fayul dinaa wax lu jub te kenn ku ci nekk dinaa la wax muy tax doo gën a sukkandiku. Abu Sufyaan bokkoon na ca ñooñu parce que Xasan ni Sadio wax na dëgg kenn ku ci nekk dalaa wax lu tax doo gën a sukkandiku xam ngeen ni donc Abu Sufyaan nag radiyallahu anhu ci la tuub dina ko wax ni ma yow Abu Sufyaan yow lépp a war a wax ne ci yow ndax yow góor gu nëbale la bu góor ñi génnee jëm maanaam sàkkat nga dem nekk ci biir kër gi nekk góor yaa ngi ma ñeex nekk sa nekk jigéen ñi ñu lay boyaloon yow xamul la wax loolu wax dëgg yàlla ci bu ñu ko wax man doo génn sa kër kon man nga yéen dinaa la tontu kenn ku ci nekk dinaa ko wax lu tax du génn ci kër bi am na li muy wax loolu yaa ko yéen saataan ni ko demal ci aw bakar aw bakar bu xam la bu askan aw bakar bu xam la askan aw bakar dina la nekk ni lan laa bokk jiw lan laa bokk abu lahab lan laa bokk abu jahli lan laa bokk ku ma yëkkat ci xalam ah lii ma dima lim gaa yi nga xamante ni ñooy saay saay yi nekk foofu kon loolu moo lay wax ne xamu askan lu am solo la comme ni ma koy waxee li ma ci yëngal nga wax ñu di kéwél xanaa kon da ngay xaw bakkat ba kéwél la mais déedéet yéen ci yàlla moo la digal na nga xam ci askan yi lu tax nga mën a jox sa mbokk waaye ñun da ngay gis koo xamante ni yan diw rek xam ngeen lu ngeen bokk mag yu ay mbokk ma ngay donc mënoo wax lenn lu ngeen bokk daa daa la gis nga xamal ay doy bàyyi ngeen sax te doo xam ne sax ay doy bàyyi ngeen loolu laa tax kay dafa tuural jàngale yonent bi alayhi salatu wasalam ndax nit dafa war a fonk ak mbokkam xataa doon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko noddul di wax Abu Sufyan ak ñi nga xamante ni ñoo doon xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah naan ajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi daka aljazau ah ajabta muhammadan mooy xas nga muhammad fa ajabtu anhu man aslaan ma taxaw di ko tontu wa inda allahi fi daaka aljazaatu maanaam fa yàlla laay tàkkoo fay yiw ci wax yi may wax ay way yi tontu bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ajabta muhammadan marran taqiya rasul allahi siimatuhu alwafaau te nag dëgg dëgg nag laal nga ba laal ko woon sa laal ah laal nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam laal ku ragal yàlla laal ku baax laal ku jub laal nga koo xamante ni kii ku ko xam sàmm wala rek baax nga ko ma ta xamee mu ne ko fa inna abi wa walidahu wa irdi li abdu muhammadin bintu bi xaar mu ne man ak sama baay ak sama yaay sama jabar ak samay doom ñun ñëpp pare nañ pour li ci suñu bopp ñu baax tànk ngir ràcc deru yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom rek allahu akbar lii nag mooy xaaya bu sëb lii la bëgg mën a yem maanaam man pare naa pour sama den jiri ak sama soxna ak samay doom ak sama baay ak sama yaay ngir na deru yonent bi alayhi salaatu wa salaam rek yéen a ko giñalee nag ni ko safiltu bunayyati in lam tarawha تثير النقع من طرفي كتابي إذا ولكن الناس يا الله سبحانه وتعالى يجيب للمقام من إذا سمى يقول يك من يأكل الماء فإن أقول يك سمى يقول يك من الماء لأن يمكن تبدور اليوم يجيب لنا يجيب يمكن كتنك إذا أمر يمكن روحة تثير الغضب لولا ما يجيب لفصل مركز nga xam ne dañuy ñëw doxal ci biir dëkk bi nu mu leen neexee ne kenn du leen laal kon saa ne saa bi boo ko xoolee lu mel noonu la loolu waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam soo demee ci diwaan saa am na way bu daw yaram boo xam ne ko faa way di ko taggee yonent bi ak waaye moom lañ faatoo la wallahi wayu dama jooy ko ndax wax yu daw yaram yoo xam ne dafa yërëm dañoo yërëm dañoo yërëm dañoo ci jéeg bi day am mu di ko fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni moom bu taxawee ci jàkk bi sax dootul mën a téye ci ay rangooñam ndax day fàttaliku ci daan taxaw ci kaw min bar bi di ko wax moom de bu dugg see ci jàkk bi fàttaliku ci daan génne ci ron ci ci takkara yàlla ni leer boo xam ni saa bu tàbbee ci biir xol yi da lay tàbbal àjjana yow allahu akbar moo tax mu ne bu dugg see ci jàkk bi moom dootul mën a téye ci ay rangooñam wax yu daw yaram yoo xam ni da ko waroon tàgg yonent bi alayhi salatu wasalam kon حتى ابن ثابت ذره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه مخرج من فرق وجدان ابن عباس فزال وجهه رايت له في كل اقواله فضلا اذا قال لم يترك مقالا لقائل لمنظمات لا ترى بينها فضلا كفى وكفى ما في النصوص فلم يدع لذي هرب في القول جدا ولا هزلا سهوت إلى العلياء أو سهوت إلى العلياء بغير مشقة وإرت ذراها لا دنيا ولا وغلا ولست حليفا للمروءة والندى مجيدا ولن تطلق كهانا ولا خطيا من عبد الله بن عباس سأقول سيدي عبد الله بن عباس من الجزء الكلام nee na saa boo gisee xar kanam rek fas yéene dina déglu te nga xam ne dina déglu ci biir nañ ci biir daal suñu borom ci ay xegam ak ay njëriñ nee na saa bu waxee wax ne day leer ba dootul may li muy def contribution loxo allahu akbar mu ni bu doon jàngale am jàngale dafay leer ba bu ko def contribution wala nga participé ci ay waxam doo amati lu xam ni mën naa ko noppi li mu wax nga xam naa yow bi nga bàyyi nga leeral waaye li mu wax dafay leer doon kuy laaj leer boo am loo laaj nee na nag ay waxam da nga yaakaar day mokkal di tari da nga yaakaar fatixa lay tari muy wax wax bi jub lay wax yoo xam ni li mu wax bi mu toog mën na koy xalaat di ko wax da nga yaakaar lu mu mokkalam di ko tari la nee na wax la yoo xam ne dafay mat dafay jub dafay bàyyi ci xol loo xam ni képp koo xam ni borom xel nga di nga xam ni bunt boo mën a jaar ba dal ci kawam boo xam te def naa loolu firnde bi sax feeñ ci suñu dal di paase ndax mbooloo moo xam ni mat nañ ay junni junni junni junni nit ah nga fexe ba daanaka mën naa ni genn wàllaat genn wàllam doolu ci leen ci genn kàddu boo xamante ni jataay ba sax su doon koo xalaat dafa dafa doon dina la dara loolu laa tax am mën naa xam may suñu borom ak taw fi xam moo koy waral moo tax ma ne ko yow daal di dëgg dëggaay yéeg la samaw si ila la aliyaa bi samaw si maanaam sama samaw si mooy yow daal dëgg dëgg dëggaay yéeg la ila la aliyaa bi jëm ca kaw bi xëyri ma saqatin ci sonnoo yow da ngaa tiir na tiir ca kaw ci sonnoo moo tax kat da ngaa am ci ay may yoo xam ne wax dëgg yàlla mayee jéggi na daga te yéeme na wax ko ay wax yu bare bare yoo xam ne dafa war a teggee kon xataa ni bi saabit loolu na way ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye bin Abbas sax fekkee na lu bari ci dundam moo tax loolu li ma la ko waxee bokk na saxaaba yi gën a dugg kon Abdoulaye bin Abbas mi ngi makaan fi qulubi saxaaba wa man tabi'ahum Abdoulaye bin Abbas ban xalaat la amoon ci xolu saxaaba yi ak ñi topp saxaaba yi muy daal gis nga ñoom ay nit lañ woon yoo xam ni dañoo xamoon xormay borom xam gis nga tey ñun boo gisee li ñuy bokk ci li ñu yàlla nattoo ñun mooy dañoo xamul xormay borom nga xam xam comme ñu xamul xormay borom xam comme ñu xamul xormay wéyju moo tax baraka daal di wàcceeku ci suñu yëpp tey la borom xam-xam yi gën a bari tey la waxkat yi gën a bari tey la mbir mi gën a leer tey la téere yi gën a bari waaye tey la téere yi gën a néew te loolu wër sama lekk tey la ndox mi gën a bari te kenn mënta naan ñëpp a ngi naan mbir mi loolu de tey la ndox mi gën a bari te ñëpp a ngi dee sax te nit ñaa ngi dee ak bu baax xam ngeen loolu wax ci yàlla mustahil mën na nekk la war a nekk kay mooy tey la ndox mi gën a bari moo tax ñëpp a ngi ba tax ba taxi ndax doyal waaye xam-xam tey la gën a bari teede yi kaset yi internet bi ah subhanallah lépp lépp a yomb sunu borom moom daal di wàcc baraka teg fële parce que mbir bi dafa yomb ba nga xam ne doomu aadama yi dafa ko tàmbali di kon ñu nekk ni ñoom dañoo xamoon xormay borom xam-xam waaye nag bu leen fàtte ni maanaam ñi fi jimit li mu lekk la ko koy fay xam ngeen Abdoulaye bin Abbas moom mooy njëkk a nekk exemple di wane xormay borom xam-xam nu mu koy wane te loolu feeñ ci bind yi weesu ci ñoom lañ def ñoom kaaf lan lañ defal ñoom saxaaba yu mag yaag saxaaba yu ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo ko raw di jàng ci ñoom ibnu Mas'ud nee na ni'ma turjumaanu alquran ibnu Abbas mais dëgg dëgg dëgg dëgg nag kii moo jeex ko alquran ñu ne ko kat mu ne Abdullah ibn Abbas xam nga ñun lan moo ko yàq ñun suñu dund gi xam nga lu ko yàq mooy añaan iñaan moo yàq suñu gis nga da ngay gis koo xam ni pour dëgg yàlla léegi boo ñu bu dee man moo la man wala bu dee raw moo la raw wala bu dee xam moo la gën a xam waaye dafa mel ni rek pour loolu génne ci sa génne yi wala nga wax ko déedéet ñun de da nga yaakaar ne ñu tudd bi ko ah diw de moom ah automatiquement lu mu gaaw gaaw gaaw yi nga sama analyse sa cerveau bi génne lu bon loo ko mën a xamal rek ni mu gën a wàcc ci bëtu bi rek mbokk yi loolu am solo alhamdulilah laay ñuy añaan amul benn sens parce que añaan ki ko def doo mën a ji ñaan da lay ci tax léegi nag man man ba man ba lay ne wala benn borom xam-xam dafa xool ci ñaan ba mu yàgg muy dëgg dëgg ci ñaan la jaaxal ñu ne ko lu ngeen jaaxal ni maa xam la bala ay saa yi faqat la muy añaan balaa may comme jëm la moom day lay ci ko def ndax ci añaan ba pare ni ci mu añaan yi gën a yokk soo ko fekk day daan mi ngi di jeex lu la waxut mi ngi di jeex parce que aji di ñaan su gisee ki mu di ñaan bi gën a avancé avec la koy nekk ci ànd xol amul solo amul njëriñ su nga doomu aadama laa sakka ni ki ko sës moom mën tëj bu ko waxul njool nit ñeneen wax ki ko sës bu ko waxul njool nit ñeneen wax léegi ñun dañoo baax ni naan wax ak doomu aadama ay baax baaxam fi réew yow nga baax sukkul sax yóbbu say olo wala ñun dafa mel ni nit ñi daal li nga gën a sawar mooy waxal sa bopp wala nit ñi wax ci yow maa ngaan yow loolu ba yow li baax ci yow moom sama kàlla dëgg ba toog ci daal di bët foog nga dafa ne bu dul sax lay doon waaye bu nit di wax ci yow lu baax tamit nga daal di waaye saa bu nit di wax ci nit lu baax rek dina tax ci di ñëw dootu mën a di leeral nga gis nag wax bi di commencé te li may wax mbokk yi xam ngeen ko ndax li ma def ba xam ko doon ngeen war a def ba xam ñun ñëpp ko dindi di ko bii daanaka ñu bëri ci ñun yàlla ko dara dañu mën a toog kon nit bi dafa war a am maanaam léegi ci nit ki li baax ne nan ko mën a bëgg te wallaahi loolu mooy oyof loolu mooy oyof da nga gis ñoo xam ne ñoom lañ gën a sawar sax mooy di wax ndax ndax jiw jiw ak jiw waaye ñoom duñ wax déedéet kooku nag moom daanaka moom mooy wér gën ak moom ndax am dikk yoo xam boo ko amee moom dara am dikk yoo xam boo ko amee su wér waaye ñoo boo ko am da ngaa doon da ngaa wax kon saxaaba ya wala Abdoulaye Mas Abdoulaye Mas bu leen fàtt ni moo mag Abdoulaye Abbas Abdoulaye Mas'ud bu leen fàttali ne moom la yàlla ñu waxoon sa ñaari ceeb yi ceeb yi moo gën a diis ba yàlla moom daal di wax Abdoulaye Mas'ud bu leen fàttali nee na amul ku ma gën a xam alquran li mu amoon te ci leen mën a dem wala ay xaalis mën a dem ba yegg te moom ma dem waaye bu ma dem ba ko wax Abdoulaye na Abbas ma dem xam-xam ma dem xam-xam Abdoulaye Mansour moo ne man de yonent bi jàng yàlla na ma juróom ñaar fukki saar ci alquran ci jëmmi ñu boppam allahu akbar wax xelum kaamil mas naa fekk soxnaam mu am benn problème benn waay jàpp ne ko kay ma dimbalal naka la génne fas ngay na sax sax ba ko xamul ci sax li ko gis dafa mer ko ci ñu sax ñu ko ni ko waa kër Abdoulaye Mansour te joyal nañ sax ci ay masaki xaar ñun dañoo wàcc leen ci yàlla subhanahu wa taala wala ci ak martaba yi mu am lépp day daal Abdoulaye mu xeet gone gi te te li gën a kii ma ne mooy kii mag mi la kii gone gi la waaye moom mag mi li mu am léegi wax gone gi lay wax muy dëgg dëgg waa ji nañ moo jekk ko alquran kat mooy baax ko mooy nit ki li mu baax la waxal ko ko ci loolu dafa am solo maanaam nit ñi kenn ku ci nekk lan mun sa morom lan baax la te loolu la société bi doon doxee maanaam da ngay koo xam ne wallaay amaat na sax moom kenn ci magi salaf yi ne dina yëgg kuy nekk li benn xadis te wallahi xadis bi moo koy jàng yaayam sax day yëgg pour loolu maanaam ku ne kii jàng benn xadis wala borom xam-xam bi wax benn xadis mu ne xadis bii ba mu ko déggee mokkal ko boo ku ne kii yaayam day yëgg ci la kii ndax yaayam ñu ko xooloo def waaye nee na muy wax damay ñëw ci déglu bu baax ndax amal na mu am ci façon jéggil bu gën a xool na loolu nag ak am solo gis nga benn mbir léeg-léeg nga ko dégg juróom ñaari yoon su juróom ñetteel ba nga dégg ko loo xam foog nga la nga jël dégg ko hikmat ruus nee na law adraka ibnu abbas asna lana ma aakarahu minna rajul mu ne ibni ibni mas'ud ibni abbas li tax mu respecté ñu nii mooy dañ ko màcc ak rek waaye bu amoon ak yi nu am kon ñun du ñu nekk ay morom koy àndal allahu akbar xoolal boobu ñu ngi ko ñu gënee fayal yéen man loolu mu ne Abdoulaye bin Abbas bu fekkoon dafa am lu ci ay at lu toll ni ñun li mu am nee na kon ñun duñu nekk ay morom bay àndal ko maanaam daf ñuy xeet allahu akbar te xoolal man suñu tool tey te moo ne kat nag boo laajoon na xam ne Abdoulaye bin Abbas boo laajoon loo xam ne moo xam dana mu ma ko mu ma ko xam-xam kenn ku ci nekk dana ko jàllax morom allahu akbar mbokk yi noonu la woon mu xam-xam bi kay bàyyi nit ñi ëppale la ko ah bu baax li koy bàyyi nit ñi ëppale la ko bu ragal yàlla li koy bàyyi nit ñi ëppale la ko yàlla na ko waal loolu sax am li koy wàññi wala dara wàññi wala dara maata waa waa abdun lillahi illa jàng du waaj wàcce boppam njëriñ li def boppam suufeen boppam lu dul yàlla moo ko yëkkati wallahi mbokk yi am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne loolu wër ci baax mi ngi ci te kenn du ko xam ci loolu duñ ko manifesté duñ ko wane te mën na am naa xam ne kay waaye dana def seen bopp lu tax ngir jënd xarit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg ci du wàcc ci boppam lu dul yàlla moo ko yëg am na ñoo xamante ni dama ne la bu ñuy ñaan muy nag wallahi ñu ngi am ba tey la am ba tey boo ko xamu ci jëgal ni am na yaa ko xamul yow waaye am na ñu ko xam am na ñoo xam ne ila yawmina hada ila saatina hadihi ba tey laa wax ba fii ñu toog ci waxtu yi ma yor léegi léegi am na ñoo xam ne ci ay góor ak ay jigéen dañuy ñaan yàlla léegi mu nangu léegi te loolu lan la xamee lay amee ba tey waaye doo dégg mukk ñu di ko wax doo dégg mukk ñu di ko manifesté am na ñu baax ñu ngi am yu bëri yoo xam da koy rëdd sa bopp lay jéebaale kon loolu la nit ci war a mel waaye su fekkee am na ci keneen kay ma wax ko ndax loolu mooy waral maanaam ak ñaan nekk ci xolu ci gëm yàlla. yéen bi ibn al Abbas nee na Muawiya dafa génnoon bi mu nekkee amirul muminin di aji. Abdoulaye ibn Abbas génn moom it di aji. waaye xaw tuuti kon nga ni mbooloo mi topp amirul muminin mu ni toll moo topp Abdoulaye ibn Abbas te ku nekk di ko laaj xam nga dafa ñëw ñu ñëpp a topp moom ku ne xam na lu tax ñu topp ko waaye Abdoulaye ibn Abbas koy dox noo koy doxee mata lay dëkk di laaj mata lay dëkk allahu akbar te lii nag mooy alfadl wa hada huwa alfadl lii mooy gënal nag nga xam ne yow doomu aadama yi li lay toppee mooy gungu leen yóbbu ci seen borom subhanahu wa taala nga jox leen ko ñu téye muy ala alwadu waaw mu leen leer la kon Abdoulaye ibn Abbas noonu la meram ci xam-xam waaye noonu la meram tamit ci ragal yàlla waaw ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس طاووس إمام طاووس إمام جمعة طاووس كندور يا عبد الله بن عباس إلى بكر طاووس كندور يا عبد الله بن عباس إلى بكر رأي الله طاووس هو خير من فجر dem di di di di am soxla bu jëpp bu mu am ci benn xaritam avant ñu julli fajar mu xam ni soxla bi mën na xaar fajar mu dem kër waa ji di ko wax mu dem laajte ñu ne ko waa jaa ngi nelaw mu jëm ko ci buntu këram di jooy ñu ne ko looy jooy mu ne musuma woon a yaakaar nit ñi naan nelaw heure bii allahu akbar maanaam ñu ne yaakaar loolu nit ñi ñi mën a ñëw nelaw heure mi ngi koy doog a xam mu ne waxtu wooyee nga xamante ni ci war naa jóg mu waajal fajar suñu borom di wàcc mën asamaan lu fees di wax ñu naan nga may la ku jéggal ma jéggal la mu ne yaakaaroon na ne ku dul ku feebar ñu war a gën a wër boobu gi bu ñëwoon Dakar xëy rek ngoñam ngay jeex bu ñëwoon Dakar ngay jeex na xëy rek ngoñam jeex ndax nun moom nasallah salaamata wal afia di nga mii doon li ma xaawul waaw nee na maa raytu awra amil ibnu abbas gisuma ku gën a ñangeel ñii dem ba mel ni abdullah ibnu abbas allahu akbar dundam dana ñëw incha allah abdullah ibnu abbas kaana rajulan saalihan taqiyan naqiyan wari'an muxlisa allahu akbar ragaloon yàlla waaye nag aayam moo ko ci yàq gis nga Omar ibn Xattaab dafa amoon lu ñuy tuddee gireemu jullit ñi xam nga tey bu ñu génnee asaka wala julli ñi dañoo ñu demee ci plan damay demande ay kilé ma ci nangam dana ca bokk. allahu akbar ñooñu dañoo am suuf soo xam ne spécial julli ñee may moom te li may waxoon naa gaa yaa koy bàtte waaye waxoon naa suuf boo xamante ni xabaar doon ci yàgg na ak tamit arbaay sana wax parce que ñeenti at ñu def lu loo xamante ni xabaar wala ñetti at boobu gën yàgg ah nga xam ne suuf boo xam ne dañ leen koy fàttal bu ko defee ci alalu julli ñi lañ koy tàmm ci leen julli Abdoulaye Ibn Amar dem lim ñetti gileemam tëmbal leen ci biir gileem yooyu ñu di leen xaar Omar Ibn Xattaab seen ñetti gileem yu duuf mu ni waaw moom gileem yi ñu ne ko gileem yi dafa doon moo ko Abdoulaye Ibn Amar mu ni ah yaay doomu amirul muminin moo tax ngay jël say gileem di ko dugal ci alal bi nit ñi pour ñuy sàmmi ba ñax ma gën a nooyee mu jël gileem yi dem jaay ko ni ko loo jëlee woon gileem yi mu ni xanaa nangam yi julli mu yëkkati nangam julli jox ko ne ko koo xam ne mu ne ko sax sa gileem bi la sax mi suur mooy fañ dul sàmmee gileem yi doon yeneen doon yeneen moom lañ doon sàmmee say gileem loolu jaaduwul bi allahu akbar xam ngeen ni yenn yar yi boo ko ci yaree pour mu adapté wu ca loola xam ko nii ko sox ko lay yomb Abdoulaye ibn Omar min sumur nga xawa yu azim shaa'ir allah fa innaka min taqwa al qulub ku màggal li yàlla màggal day war ne ku ragal yàlla la su Abdullah ibn Amar su ko jaamam mataana tooñ ci biir masjidul haram jàpp noo toog rek su ko ñëwee def ci biir masjid danañ ko génn ba mu génn bu noo ko jàpp noppi ndax nee na bëgguma jàpp noppi jaam bi ci biir fii yàlla orma allahu akbar Abdullah ibn Amar fu mu yëppoon ci dëkk ak ragal yàlla ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak xam sunna loolu moom muttafaqun alayhi bayna jamii saxaaba wa taabiin saxaaba yi xamoon nañ ko taabiin yi xam ko boo gisee Abdullah ibn Omar neexoon bàyyam Omar ibn Xattaab loolu lee ko waral boo gisoon taabi sëtëb Omar di doomi Abdullah ibn Omar neexoon Abdullah ibn Omar lool parce que dafa jaaroon ci tànk ci bàyyam jaar te ci bàyyam jaaroon moo tax mën ndax yalumuunani fi saalimin wa alumakum wa illatin bayna al anfi ayni wal anfi saalim Abdullah ibn Omar dana wax nit ñaa ngi naa ma maanaam dina doom yi ndax da ngaa gën a yóbbu saalimin dina gën a nangam muy li may def nëkku ma ko làqu ma ko teel bi ne sama diggante bët bi sama bakkan bi mooy saalim duñ ko laajee lu tax dana bëri ci sunna ma bëgg koo ni ñoom ñun nit ñi jékki-jékki rek gën a yëkkati kenn déedéet loolu ñu dafa fiiroon ci sunna ëpp sunna yenn xay moo leen jaaxal yi doon ne ndaw la woon moo tax Abdoulaye ibn Amar bëggoon ko lool radiyallahu anhu kon Abdoulaye ibn Amar yéen daal su borom la woon ci buntu bi ci ñaare ci bañ a laaloo ci soo jëw bi xam nga suñuy alwaraa rek muy nit ci doo lekk loo moomut ah mu jëw kenn doo wax ak lu bon lu sa yoon nekkul doo ci dugg affaire bi daara ngay nekk rek ngay jàngale Abdoulaye ibn Amar xam ngeen ni bokkoon na ci góor yi saxaaba yi waaye nag mu ne wala ah anam min ibn Abbas mu ne gisuma ku gën a xam Abdullah ibn Abbas kon kii ba tey de man la ko waxee parce que ndongo la woon ci xam ngeen baawu ak Kirima ak ñeneen ak ñeneen ñu siiw ñoo xam ni ci xam-xamu tafsir ban sax nag ñoom ñoo doxal baawu ak Kirima mu jaani ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo doxal xam-xam Abdullah ibn Abbas ba mu yegg ci yu tey Mujahid nee na maa raaytu ahadan xattu misla bni Abbas misla bni Abbas Abbas nee na man de musuma gis ak sama ñaari bët yi ku mel ni Ibn Abbas mu ne laqad maata yawma maata wa innahu la xabru hadihi l umma mu ne wallahi dem ci sam yee tax nga xam ne suul nan ko léegi dugg teew mu continué nekk góori xeet bi allahu akbar loolu nag mooy am na ay nit yoo xam ne ñoom ñi ngi dund waaye yee nag bu jàpp bañ suul leen seen jëm rek la ñuy gis ah waaw ci koo xam ne ba wóor dara yaa ngi dund ñu la fàtte ku dund ñu la fàtte xam nga ni boo dee mën wax waay waaye Abdoulaye ibn Abbas ni mu faatoo bàyyi na mi xam-xam bu fàtte loolu moo tax imam Zahabi di wax lu mel noonu boo mu nekk ne ja teeru alaami nubala teer la bu mag xam ne ci cosaan ya mat na ñaar ci bëri ak juróom benn loolu li ko gars yi tënkee sewal bind bi la nekk fukk ak juróom ba mu paree ca loola dafa amaat beneen téere bu mu daal tuddee ko tas gërëm su xool kën kaat ñooñee sant bi ci bi ci gën a kéemaa def ko ci ñaari mu jël la tuddee ko tas gërëm su xool xam li ñuy mokkal te mu xaddima jël daa wax ju am solo mu ne gis nga gars yi may nettali nag amatuñ ci kaw suuf ñaari barab rek nga mën a dem gis leen dem seen mbaam leen sulli leen mbaa nga yëg seen téere yi nga gis fañ nekk waaye doo leen gisati ci li nga doon noonu ci kaw suuf allahu akbar te loolu wér la kon mu ni faatoo waaye dañ faatoo mu ngi nekk xabrul umma muy fóore xeet bi ndax ba tey daanaka amul benn mu fakkil bu sañ a taxawil alxuraan la dëgg laa ko leen naa ba junne yoon xam ndax ay riwaayaatam yu siiw yu xam ah am na benn téere bu am solo boo xam ne ñu ngi tudd al israiliyat wal mawduat fi qissat al quran al israiliyat wal mawduat fi qissat al quran ñaari mujallad la Ahmad Aïssa moo ko taalif boo ci delloo sa muqaddima ba andi na ba ñi gën a siiwe ci taarif al quran bokk na ci Abdullah bin Abbas Abdullah bin Omar Abdullah bin Mas'ud ak gaaye ak Ubay bin Kaab Ubay bin Kaab Ikrima ñoom waaye boo yeggee ci dugg Abdullah ibn Abbas nag fa ngay comprendre dëgg dëgg dëgg Abdullah ibn Abbas ci alquran téere bu ci dellu kenn mooy Abdullah ibn Abbas ci tafsirul quran dañ koy xam comme ni nga xamante ni al imam al Suyuti jiitu na ko ci téere bu am solo boobee nga xamante mooy al ifhar fi ulum al quran kon Mujahid nee na ibn Abbas képp gis nga mu faatooy teewul mu ko nekk booy xeet مجاهد من يجنينا كان ابن عباس يسمى الأحرى لكثرة علمه من وجد إلى مقاحة الأمة كيف يخير لنا خم خم بنا فمالي ون نبي كده لكن ها فالومن بلا يغلق إن جيبا لما وقل لني أمنا مخيم وقم يواقو أي يب ويدوم حقو خيم ومكولي مخمول لنجي يتبع يقول لنجي من نجل جوال كي ndax bis boo xam ni am mbooloo ñooy ran ba fees mañ bi ah muy xëy na muy laaj ci alxuraan duggal ñooñu laaj ba génne laaj yem ñu dem ku am laaj ci tafsir duggal bu ñooñu laajee ñu génn dem ku am laaj ci natt ñëwal ku am laaj ci miraas ñëwal ba laajee jeexee xam nga lu wax ku am laaj ci luga wala way mu ñëw laaj xam ne loolu sama diggéel da xanaa bokk ci sax laay wax parce que yéene lañ doon wax boobu waaye liñ ci war a poye mooy arab muy adab ah nga xam ni suara wu jaahiliya la wala boog ak suara wu fi islam te yooyu yu am solo la parce que am ko dafa am solo ndax luga bi dëgg dëgg dëgg dëgg faw mu am suara wu jaahiliya te suara wu jaahiliya daf ci am ñoo xam ne ñu concerné islam ah ku mel ni Kaab ñoom ku mel ni Kaab ibn Zuhayr mu ne maanaam suaatu ba nafsi yawma mashghulu ah nga xam ne di taaga yonente bi alayhi salatu wasalaam ba muy yàq yonente bi joxe ndigal dinañ ko reen daa fi ne du rëy dina saaga yonente bi di ko saaga di ko saaga ba mu yàgg yonente bi joxe ndigal bu ko ci def reen di ko daa ci bi mu tiitee benn xaritam mu ni ko bëgg nga tuub gi dëgg la ci yow mu ne ko waaw mu ne ko boo àndeeg man dinaa la yóbbu ba ci yonente bi alayhi salatu wasalaam nga tuub mu ne ko loolu loolu wóolu wóoluwuma ko mu wax ko wax ba convaincre ko mu fexe ba saala ko mu ñëw ci kanam yonente bi alayhi salatu wasalam ba ni ko jàpp na ko yonente bi ne ko yow la kan mu sëdd lànk ni ko man la kaab bi kaab ni ko doon xas mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saxaaba yi xam nga fi ñu toqalee mer bi dama la xeet nag parce que rentage yéen ci biir suuf bi mën na gis li war a fi nag mooy mer meral naaj parce que gis ngeen ñoom dama gëm ñeenti mu tëla gars yi commencé xeeloon te xam nga ñoom daal dama ci seen yaay bi leen yomb lool rek taxawa yéen ci baara suaat ba nag ci yow masbuulu ah way yéen ba yéen ci suuf bi man na ñu solo jox allahu akbar man sa bu gàtt way yéen safara ko yu am solo ba yéen ci suuf bi man sa bi jox ko kooka moom ak tuubam neex na moom ndax tuub si tey yi war a laaga nit ak rey koom man tam yéen tàggal ñu summi ko jox la yow moom loo mën a am moom demal rek ci noppi yow amatoo loo wax yow kon gis nga Abdoulaye Ibn Abbas kon ay xam-xam bi moo taxoon ñu ko waaye al xabaru wala al baxru muy géej la woon ndax noonu mu meloon ci xam-xam matru ibn al ajda moom it si ñoom la Abdoulaye Ibn Abbas gis nga tey ay noo ko ko def nag masrof xaw tuuti kon rek yàlla sax boo laaj ne masrof tuddoon du ko xam xam nga ibn abbas dañ xam ne abdoulaye ibn abbas la ah ibn moom nga xam ne abdoulaye masolul la ubay nga xam ne mooy ubay keneen mooy keneen masrof nag xam ngeen li masrof di nekk ci arab masrof mooy ku ñu sàcc sare sa yasriqu masrof xam masrof mooy ku ñu sàcc borom xam-xam yi xaw na fier dañuy wax rek li mu nekkee fee dañ koo sàccoon liñ ko gisee ci digg ne mooy ku ñu sàcc ñu tuddee ko masrof moom mi ñu sàcc dama yàlla wala sëgal na moom xam naa bu leneen koo sàcc am na xam-xam muy borom xam-xam bu mag masruuf mu ne nee na kuntu idaa raaytu ibn abbas man de nekkoon naa koo xam ne su ma gisee ibn abbas mu ne xultu ajmalu naa mu ne su ma jàkkaarloo damaa man de musuma gis ku rafet ba mel nii ci taar bi ko yàlla dénkoon mu ne fa idaa nataqa qultu afsaxu naa nee na bu ubbee gémmiñ gi wax nag mu ne man dama naan ba ma dalee dégg ba tey musuma dégg ku làmmeñam leer ba mel ne Abdoulaye ibn Abbas nee na fa ida taxaddata qultu aalamu nee na bu waxee rek ma ne nag moom kii ñun ñëpp dañoo war a wax di ko dégg muy wax kon lii mbokk yi ay seede la yoo xam ni borom xam-xam yu mag ñoo ko seede ndax ñii dëgg la ay ndongam lañ waaye bul demee ay ndongam lañ ay gone lañ ay góor lañ ci seede ndax Abdoulaye ibn Abbas yàlla nee na ñuy dellu ci ñoom xam ngeen Abdoulaye ibn Abbas waxoon ay ndongo Abdoulaye ibn Mas'ud am ay ndongo Abdoulaye ibn Omar am ay ndongo kii nekk Basra kii nekk Kuufa kii nekk Makka kii nekk Madina kenn ku ci nekk waxaare ah ñoom Alqama ñoom ñëpp ci ndongo ngaa yooyu la ñu génnee ah ñu génne ci école yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nag mooy firnde li ma doon wax sànq rek mooy doomu aadama ju nekk am na tawfiq ci ko yàlla defal gis nga nit ki li mu baaxal nañ ko ko nangul comme ni koy jéggalee li mu jub li mu jub ñoom loolu moo nekkoon seen doxalin te lii daf ñoo màndeef ko te lii dugg ci buntu ci ko comme ni muy duggee ci buntu muamala def lënt mooy li may baabu ay yoon rek gis nga seytaan daf noo yàqal a yàqal a yàqal ba yàq gi yegg ci gis nga nit ki fukki at ak juróom te gannaaw boo ko xamoon di xam ci moom lu baax di xam ci moom lu baax nga xëy dégg ñu tëj nañ ko kafa lu xaw ñu ne daa def nangam nangam rek nga gis nga commencé ñu mel ni yow mu doo ko xamal dara lu baax ba xool mbokk yi fan la jaar ba église man ñu ci buntu boobu léegi lan moo tax ñu dégg ne doon am ay njuum te yu toll noonu wala yu ko gën a rëy te lu dee ba léegi nit ki continué di baax da ngay dégg ku ne ah yu de masalaam kii daanu na ci ba ba nangam waaye nag bu dee góor la nag góoree ma xasal góoree moo ma xasal ak ak ay oo jàng dundam ci borom xam-xam yi nag da ngay gis masala moo xam ni sa way dafa daanu ba xalaw nga naaj la ndax loolu moo tax cheikhul albani rahimahullah xadis boobu ci buluugul maram di wax ni kuy julli boo amee saafir teg ko boo amul saafir rëddal aw rëdd ibn xajar mu ne xadis bi xadis la bu wér cheikh albani da ko xool bu yàgg mu laa nekk dafa bàyyi cheikh albani dafa xool xadis boobu yàgg mu ngi dëgg dëgg ibn xajar dama xamul fan la xelam nekkoon bi di wéral xadis ndax kilifa bu doy ni ibn xajar nga xam xam xadis nga xam ne tey ci póore yi muy jéem di ko xool ci kaw la bokk xadis jéeg li mu bàyyi ni mu di ko wéral mu ne waaye nag tontu bi mooy njëkk dañu kulli la waajib kabla mag bu mën a daw dina mu tëkër ak wax dëgg parce que lu mu naaru góore naaru góore lu mu jàppaare jàppaare mën a daw da nga naan ko ay mu tëb rek xam nga xal mi day dem ci suuf daal loolu du gaa jàmm de la am mbir mi noonu la maanaam nit ki noonu lay xoolee dundam gi gën yëpp ak ay mbokk jullitam su ko wàllu moo koy dimbali maanaam nit ki dafay fexe ak dem de ba ba damay seen xoolee buntu sa mbokku jullit bi maam la fexeel la maadaam mu ëpp li mu bon lee àtte ko ca la mu baax la mu baax ci li mu bon lee li ci def muy nit ci li mu baax la ñu di ko ko waxal loolu lu am solo la i'tiraaful fadl li ahlil fadl loolu mooy i'tiraaful fadl li ahlil fadl mooy ñi nga xam ne yàlla baax na leen may na leen nangam yooyee bu ñu leen ko safaree ah sunu borom subhanahu wa taala mi ngi koy wax ci alquran man ñëw kay wut soo ko ko Allah ñu fas yi ñaanal yàlla ci nga leen dund yàlla may na laa may yàlla mën laa may ko ndax moo ko may ndax moom di dugg àndaale bi nit di am waaye déedéet nit ki da koy ñaan di bëgg mu yàqule ñun ku dégg ci sa mbokkum bi am na loolu yàqule da ngay kontaan waaw nit rek loolu mooy yàq de maa da ngay kontaan dégg mooy da ngay dee waaye lan moo ne ci xol bi oo ko sa mbokkum bi ñàkk na nangam ah toolam yàqul soxnaam sax na daa nangam dafa nangam dañ ko laax fa muy liggéey la gis nga yooyu boo ko yëgee su fekkoon ne tey yéene nit kenn ku nekk yi sama baax rek nga nangul ko ko vraiment boo ko yëgee da ngay fii dafay lenn ni yow sa bopp lañ daax su waa ji dafay bokk du ko fekk tey ndax jiw day saan su xam benn problème ñun de kenn du am problème ndax dañ ko am problème eh ñun kay kenn ba nga amee problème daa fekk yaa am problème waaye sa bopp pare problème ah waaye loolu koy waa te pare nañ buñ ko tuddee waa jàpp tudd waa ji doon yow loolu moo lay wan ni gis nga baraka bi yàlla moom defal ñu njëkk ñi ak ndimbal ba tax yéen waa ah jamaa suñu waroon defal ñu kon waxaana wax dëgg rahim mooy Abdoulaye ibn Abbas dund na ci ay at juróom-benn fukki atam fekk na ah dund benn juróom-benn fukki at yoo xam ni mi ngi koy toog di jàngale di wasaare xam-xam di wasaare ñëpp waaye di wasaare li nga xamante ni moom mooy yar moo tax si mu jëntalu dundam dafa gën ma xawoon dafa gën ma xam ndeysaan gars yi ñëw naa ko ah yow Abdoulaye Ibn Abbas yow moom yow kat yow yow sa yéesal nit na rek te foofu ci wér nañ nit wax bi ci baax ni nit day am problème ñun ñooy yokk problème ñun ñooy yokk problème suñu mbokk mi ma leen doon wax bari ci démb yi dafa yàlla daf koo natt mu baax jaasi na dama woo benn papaam bu mag la ci daaw di ko ko jaaree subhanallah wax ma loo xam ne li tax ma ñu ko di teral mooy ñun ñoo xam ne ñun ñu problème yi nee na ñun ñoo koy yëngu bu yëngu mu ni ma ah loolu kay du dara yàlla moo ñu ko abaloon xam naa abal bee yàlla rek moo tax ñu commencé xuusi moo ko jël loolu kay dara nekku ci allahu akbar yàllaa ñu ko abaloon mu ni abal bee yàgg moo tax ñu defee ne ñoo ko moom moo tax jël na yëfam mu kay doon ko ñaanal yàlla muy dem mu jeex allahu akbar loolu mooy waxu jullit waaye da ngay ku nekk ci problème bi fii yow kii si lii naan njàngal na ko lu bon ni lu mu tuddati li ba ñu def ko kubba lu bon ni mbaa ñu njàngal ko def kubba mbaaru jawe su ko defee affaire bi lii la waroon ci jëfal dina delloo si xanaa ko palaas da ngay jàng seen dund nga gis ku ne ci ay problème ay mbokk yi di ñëw ah ku sax ñeenti doom jee ci xare nit ñi dina jaarale si nga naan bu fekkee dañuy ñëw pour féliciter ma mu wax doom bu jigéen ni ko bu dee dañoo ñëw pour félicité ma nañ ñetti bu dee dañoo ñëw pour dolli ay gis ma fanaan la ko allahu akbar félicité ma su ñu koy félicité yi ñeen ci doomam dee doon nañ ci xare noonu la jigéen war a mel yàlla mu la ah yow yow sëñ bi yow lii gën a xam yàlla su tax nga di gën a kii ni sa tam mu ni mu ni ah yow yàlla jox ma ñeent ñaari jox ko ñaari bi mu nangu benn bi kese loolu kay xewal bu nangoon ñaari bu ko jox loolu la aw wala bisu bay waxoon ba mu feebare bañ tàgg tàgg ba gars yi ñëw mu ni ah yàlla dama di rek te kat daal ku dagg doom bi dee loolu la boole ndax man bi mu wér doom ji ci bi doom ji dee ba pare mu am góomu rabaare dans le temps de l'émission bi ñu dagg tàgg mu ni yàlla dégg na ma juróom-ñaari doom nangu xeex te bàyyi ma juróom ñeent loolu kay wax dëgg yàlla sant la yàlla mayoon ma ñeenti cër ñaari tànk ñaari loxo yóbbu benn tànk ci kese bu yóbbuwoon ñaari yu ma ñëw allahu akbar ñii ñoom daal la la garab yi waxoon rek. bu leen bëgg a gis daal suñu la amee ni maa nga xool kii bii. Abdoulaye Ibn Abbas di ko gars yi wax loolu suba di nangam mu ne am yi amul solo. leeru bët yi donc moo dem de waaye fa bii lisaani wa qalbi bi minhuma nuur laam bi la ci doon leer mi ngi ciy def ba léegi xam-xam bi mu ngi ci dënnu ba dënnu ba léegi nag. ah mu ni sama xel mi sama xol bi mi ngi leer sama xel mi mi ngi ba tey demut te sama làmmiñ waa ngi nekk jaasi bi bocceeku di jëriñ ba tey. waaw. nga ne kon loolu la Abdullah ibn Abbas loolu def al imam ibn Jawzi mi ngi nekk ci Siyar A'lam an-Nubala te dëppoo na ci ci imam ibn Jawzi ci Sifatu Safwa dëppoo na ci imam Az-Zahabi ci Siyar dëppoo na ci ibn Abdul Barr ci Isti'aar ñoom ñett ñëpp ku nekk nekk na lii may bëgg a wax bi ñu tëralee Abdullah ibn Abbas ci armeel bi ci kóosu bàmmeel bi di ko waaj a tuub dañoo jékki-jékki rek seen benn picc mu ñëw rek daga ci biir ma picc moo xam ni ni mu rafetee rafet bi daf leen a yéeg mu yëpp mu ñëw rek daga ci biir ma saa yi xool gisul xamul fu mu jaar xamoo daal làqu ci biir malaan bi ci tàngaay yi xamoo daal dugg ci xëy bi te dafa dugg ci biir liñ koy gis saa yi xool xoo ko gis ñu ko ñu suul bi ñu suuree ba noppi ñuy dégg benn baax muy jàng xamuñu baax bi fan lay bàyyi di wax yaa ayyatuha nafsu lmutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati ñu ngi dégg baax bi waaye kenn xamul kan noo koy jàng man daal xam nga daal ca kaw lay xam ko moom ci suuf si lay génn yàlla daal bokk loolu imam Zahabi moom gën a ci la ci fiyaat ne fa haadihi qadiyatun mutawaatira mais lii moom lu bir la lu ñu xam la borom xam-xam yi ci la ko seeni téere te am nañu ko fekkee Jaabir ibn Abdillah nee na wala moom garab bi ñu ko waxee ni ko Abdullah ibn Abbas dafa faar dafa fëgg la ñaari loxo yi mu ne maata aalamu nnaasi wa ahlamu nnaasi wa laqad usibat bihi haadihi l umma musibatan laa tartab allahu akbar Abdullah Jaabir ibn Abdillah keroog biñ ko waxee ni ko ah Abdullah ibn Abbas waaw nga xam ngeen Jaabir ci ñu mujjee faat la bokk Jaabir ci ñu xaw na gudd fan tuuti ci saxaaba yi la bokk Jaabir tamit ah fëgg la ñaari loxo yi ki ma xamoon ni gën a xam ci xeet bi faat na tey ki ma xamoon ni gën a lewet ci xeet bi faat na tey te mu ne xool moo xamantoon ba la de Abdullah ibn Abbas lay daal waaye xoolal yooyu seede mu ne tey de islam am na musiba joo xam ni gën-gën boo xam ni neex a bat naka wax dëgg gën-gën boo xam ni neex a bat kon kooku mooy Abdullah ibn Abbas xabrul umma sahrul umma wa turjumaan al Quran ah doomi ummul fadl li nga xamante ni moo jiitu woon dundam kon ummul fadl moo jiitu woon moo tax ñu ne Abdullah ibn Abbas kon kooku mooy Abdullah ibn Abbas ñu ngi ñaan suñu borom mu dot ci waa meng xéewal ak yërmande ci kaw yonent bi ak mboolem saxaaba bi Abdullah ibn Abbas ma ko jaxat mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu topp ci seen ginnaaw kon incha allah tey mooy nekk bind bu mucc ci lu jiitu koor gi bu ngeen fàttali ko comme ni ñu ko doon defee duru si dañ ko doon xaaree ci koor gi donc des na anam kay des na waaye xam ngeen ni ci biir koor